jërëjëf xanaa bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi di eh, kontaan ci ñëw gi ñëw ci Mboussandir eh, Touba Mboussandir ci seen bis bi nga xam ne ku lu murit xam na bisu tey bi nga xam ne liggéey la boo xam ne eh, suñu la muy sëñ Baba moom lañ koy màggale te ku ne xam na jàmbaaru lislaam la donc bis bi tey bu ñëwee ñu euh, nekk ci boppu làmbaay ah euh, du ñu mën a def lu ñëw teeru gan yi parce que ku ñëw ñun nga ñëwal donc euh, ñu ñëwoon ànd ak sama délégation bi a ah, pour ziyaare ziyaare nag parce que ku ne xam na ne Moussa Ndir li mu représenté ci lislaam donc euh, tey bu amee bis bii ñu jagleel ko euh, sëñ Baba du ñu man lu dul kontaan ci ñëw lu ñu jàppan ñu bàyyi ko ñëw ziyaare ah, gis nga fii ñu taxaw nii dañoo bëgg a dugg après ci barab bi ah euh, nañ ko daan defee di sàkku ñaan ñi fi tëdd ah pour que Lambaye jëm kanam mais Sénégal aussi jëm kanam. lim li may dénk askanu Mboussa Ndir ak askanu Lambaye lenn rek la. Euh, li ñu am ñu xam li ñu am fonk ko parce que jafe na a ah, suñu làmbaay gii de ah ay jàmbaaru fàkk tëdd ñoo ñu liggéeyal te liggéey boobu dañuy def suñ kemtalaay kàttan ba du niil parce que nag ay nit a ngi jóge fu ne ah, di ñëw di ziyaare si te loolu ah, di ñaanoon peut-être euh, doon nañ bëgg lu mel nii am fa ñuy jóge donc ñun ñi nga xam ne yàlla def na ñu am ko fii ñu dëkk wallaay buñ ko sàggane ah loolu daal maa ngi koy ñaax nit ñi ah di leen wax ne li ñu am nga xam ne muy ñoom sëñ euh, Babacar euh, Ndiaye Cargaan sëñ Maam Mor Mané sëñ Aliou Diouf làmbaay sëñ Baba Ndiir ak ñeneen ak ñeneen ah def ko ci réew mii wallaay buñ ko sàggane parce que ah euh, nit bëgg na koo am te amu ko donc ñun ñi ko am nañ def ba ëllëgati si dina yokk ko rek mais buñ ko wàññi jërëjëf